Euh, te Luc Nicolaï Enco tëgg ko waaye ngeen amoon jàppal ndal gi euh, ci euh, groupe E-Média muy ITV ak li nga xam ne moom moo di i rajo ak bés bi le jour El Hadji nga Ndiagne ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la massaw coono ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nga ko démb ñun ñii sax nga xam ne yaay suñu mag yaa ñu jiitu ca làmb ja di reporter lu lu lu am solo ci rajo i donc ñu ngi lay massaw bu baax a baax di la encouragé waat ak di la félicité ñaan suñu borom guddal sa fan. yàgg la sunu kanam nga yàgg noo wéttali ci mbaaxu yàlla ak yërmande ndem ak coobareem ci barke leeru yàlla alaaji ngañ ñu ngi lay nuyu baax a baax di la bàyyi nga nuyu ak auditeurs yeeg internet yi nekkee ci page officielle bu i rajo jërëjëf euh, Cheikh maa ngi lay fay mm-hmm. euh, di la sant bu baax yow it mm-hmm. di la féliciter euh, di la gën a encourager ndax yow bi ma lay découvrir ci làmb boobu ñëwagoo fii ma déglu la say face à face ma seetaan ko ndax man làmb dafa intéressé ba ki koy def ak sérieux mhm. ak sérieux laa wax mhm. dama lay topp ndeysaan ku koy def ak sérieux mhm. dama lay topp dëgg la mais boo ko dul def ak sérieux jàppal ne seetaanuma la xooluma la dëgg la parce que dafa ne ci man làmb dañuy yàgg maak moom Cheikh looy seetaan pendant quarante ans du ñaari fan déedéet déedéet boo li seetaan pendant quarante ans mu leen na yi li nga ciy gis dëgg la te xàmme nga ko kenn nettiwu ko def naa ko ci làmb kon loolu ku koy def ci série rek. Mhm. dama lay dama lay topp di la seetaan. Euh, bi ci des. Mhm. mooy la direction général mhm. maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. xam nga ku indi lii. bay la bayloo mbërëma daan bayloo mii ci café gi. bayloo kontaan ci liggéey bi moo moo indi lii moo moo indi ndékki li <laughs> xam nga xam nga waxuma kan la eh, eh. dama gis kii bi rek xam ne bayloo la bayloo la bayloo kontaan ci liggéey bi <laughs> waaw bayloo ndeysaan des fois mu jékki-jékki nga romb rek mun a kaay waaw waaw la waaw ci kër gi la bokk naan la mbiskit a ngi nii kontaan naa ci seen liggéey bayloo ci kër gi la bokk ndeysaan ndeysaan waaw ci kër gi la bokk ba mooy tuuru kër gi waaw mooy tuuru kër gi ndax moo jàkkaarloo kër gi <laughs> xam nga euh, Cheikh <laughs> eh, euh, direction général maa ngi leen di nuyu bu baax di jiital mm-hmm. le directeur général waaye mm-hmm. mention spéciale Boubacar Boubacar Diallo kone xamna ne gis nga boubacar à 3h du matin mm -hmm. la veille mm -hmm. kone gis nako 4h du matin 5h du matin la teud ak yow yak ñal sal bi nga ñep wallahi mais xolal heure bi mu téwé ci stade bi ak bu jeex gadul lepp lélé dama koy xol ba ci yag wallahi Euh, démb sax dama to dama ko toog di wax ci moom. Mhm. ba mu indil ma ndox mu foog ne <laughs> ndeysaan booba maa ngi ko ñeewantal. billaahi jàmbaar waaye yal na leen yàlla fay. amiin xale yi tamit. Mhm. gàcce ngaala ma. wallaahi dëgg ay kilifa ñoo ma woo. Mhm. ne ma seen direct bi. sooxul. déedéet amul gré <laughs> amul dara. caméra loxo ñu waaw nee na nee na vraiment vous avez fait euh, euh, xoolal kilifa ay kilifa ñoo ma woo wax ma ko. coow lay bëri rek waaye. kenn ku ne bi ci des bi ci des. Cheikh. lamb ji bu ñëwee ba fii. Hmm. yeebaa la. dëgg la. te loolu. Hmm. du looy wax du lu may wax élément yaa ngi foofu dinañ ko déglu ci après 11h. alaaji ngeen xam nga lan laa wax nee naa leen vidéo tuddul vidéo hmm. weddi woo la tudd waaw weddi woo waaw bi coow li bëree dafa baax bi coow li bëree ma commencé wax naan lamb ji yeebaa la commencé te yeebaa la mujjee ba tey jàkkaarloo doo waaw moom laa la wax man leen nag vidéo moom moo tudd euh, tudd na vidéo ci leen ñi waaye ñun weddi woo lañ ko weddi woo la fa ñuy waxee rek fa la xare yi dugal li nga xam ne mooy mooy mooy mooy yeeba est que xam nga ni <laughs> bo Modou Lo Ama Baldé hmm. boobu rek moo nekk seen face to face te moom mujj nekk seen face to face cheikh boobu togg mm. buñ la ko toggalee mm-hmm. ba mu ñor mm. baaral ko mm. ba mu ñor ba yàq des ak lekk boo ko tegaatee ci taal bi mu xooñu day xooñu <laughs> waaye waaye <laughs> li ñu xam a bëri xam nga lu ko teree xooñu <laughs> xamoo ko eh, déedéet groupe EDK groupe EDK wallahi Sénégal bu Sénégal dama ne mm-hmm. tey ku ne am nga devoiru télécharger mm-hmm. kaa pay looloy dëgg xam nga lu tax dëgg la léegi alaaji ngañ comme dañoo nekk damaa nekk ci ay heure orange. xam naa bu ñu demee ba boori douze heures jàpp euh, quatorze heures. <laughs> danañ wax ci lool ah da nga bëgg. waaw parce que loolu. <laughs> man de xam nga man moom. xam naa la xàmmeewu ma jànj <laughs> uh-huh. ak joor. man ko xam nga ma xam. Uh-huh. ki ñuy bëggal rek. waaw léegi nag. ayca baabaa léegi fi mu toll nii ja ja ja ja jànj jànj fi nekk. bu ah, après dinañ après dinañ ñëw ci joor. après ma ñëw ci joor. alaaji Baaba Ndiaye. waaw su ma waajee. noo dundee lamb Ama Baldé Modou Lo. mais mbégte rek seeraan koo kontaan. torkal la parce que xam naa ne Sénégal moom. Eh. Euh, démb kontaan nañu. torkal du peut-être ñëpp nag mënuñoo bokkandoo kontaan. déedéet déedéet mënut a nekk mënut a nekk. mais xamal naa la ñaar de. Mhm. kenn du yéen de. waaye tamit kenn du yow. Cheikh. Eh. xam lu ma yéem. mooy ni nga ñetti ñettee bagage yi ba egg si Modou man loolu damaa yéem foo jaar. mais mais loolu la réew alaaji nga nekk Sall xam nga bu ñu defati concours daw. Eh. duñ la fi bàyyi de. te grand bu te grand bu bolos te grand bu ñett ñett abdu ma ne waa mais sama waa ji moom gën. man dama tourné rek gisulu. zone zone oh, mais yow mais yow. gisulu zone ci waru Modou Lo. Ah, mais xam nga lan yéen yéen xam nga lan nga waroon gis. waaw. Euh, bi ma bi ma bi ma ngañ jaañ ak Sall bi di karkaral bëgg ma génnee arène bi looloo neex. <laughs> am nga boo amee ay mag yu la yërëm ba pare bëggal la jàmm. waaw day saan jàppee la comme seen bopp. billaay xam ñu naan moom moytul digg arène bi li culture jaay galaaj di ma karkal di xëcc bala leen dina am réaction Modou Lo de. waaye tubarkalla liggéey bi daal jaar na yoon. waaw ah, macha allah naa la a benn affaire de. waaw est ce que xam nga ni mbër yi li ñu daj laay daj. ah mais bien sûr man damay sport ba bay bëgg a ah non mais yow ndaanaan nga champion nga des fois 22h laay génn salle sport. da ngay seet loolu. ah mais tamit ku dem ci lamb ji fa nga defar sa bopp. Wa da ko laaj nag. des fois dafa am xalé xale yabaatu yu ne ci biir. waaw ayca ñu ñëw ci El Hadj Ngagne Diagne El Hadj Ngagne Diagne. waaw làmb ji nga xamni ni. ku ne xam na ni euh lamb ji tension bi ci nekkoon. Mhm. waaye tamit lamb ji ci walu mystique. Mhm. bi ci amone. Mhm. Lamb ji ci walu pression bi ci amone ci diggante mbër yi waaye ci diggante. li nga xam ne moom moo di euh, moom moo di euh, promoteur bi mhm. tey euh, démb lambi démb ji boo ci amee jàngat rek laataa ñu ñëw ci image yi mhm. ñu ngi gis Modou ak Ama Baldé mhm. ni ñu jàkkaarloo noonu ci sa ginnaaw mu nekk photo bu rafet boo xam ne tubaarkàlla liggéeyu liggéey ñoom Pape Doudou Diallo la ak ki nga xam ne moom moo di Silla tubaarkàlla ci photo yu am photo yu photo yu rafet daal gis naa ko <laughs> tubaarkàlla photo yu rafet photo yu rafet ah.

ñu faral Ama Baldé na ñu bind Ama Baldé cœur parce que loolu dana dooleel tamit ndaw yi nga xam ne tubaarkàlla ñoom ni ñu ngi ci làmb ji mm-hmm. alaaji ngañ bismillah jërëjëf d'abord euh, Cheikh mm-hmm. loolu yow laa koy sas mm-hmm. kàngami musicien yi kàngam yi dama bëgg nga dajale leen kàngami musicien yëpp ñu mel ni Pape Djibi Ba Pape Djibi Ba waaw dajale leen insha allahu taala yow laa ko sas dinaa def bu soobee yàlla yow yow am nga am nga sañ-sañ bi am nga fit wi waaw ñooñu dajale leen insha allah balaa balaa balaa musique bii raaf incha allah am lu ñu bàyyil xale yi. bu soobee suñu borom d'abord làmb bi démb ji. Mhm. coow li bari na Cheikh. torop xam nga lu indi woon tension bi. Mhm. dañ leen nam moon rek. dëgg la est-ce que xam nga ne Modou mi ngi doog a bëri arène nationale. aussi la même chose. Ama Baldé ngi doog a bëri arène mhm. gis nga ñoom ñaar. dafa am lu ñu bokkale xam nga fu ñu mujj a jógee. Léopold Senghor. stade Léopold Sédar Senghor. kii ci Eumeu Sène. kii ci euh, Papa Sow. Papa Sow la. ñoom ñaar xam nga ne revanche por procuration la woon. waaw mës nañ laale déedéet par procuration parce que Eumeu Sène daf ko yóbbante ne indiwaatal euh, euh, raaya bi dëgg la Papa Sow ne ko la ma Ama Baldé defoon ci yow laa ko yaakaar nga fayu ko waaye tamit ak Papa Sow wala wala euh, magi Papa Sow bu nu mu tudd Ousa Ousa la ko Jules Baldé def waaw déedéet Ousa Jules Baldé uh-huh. moo feeñ ci combat bii démb parce que bi ko bi ko bi ko Jules Baldé wëree ndomb. Uh-huh. Gris Bordeaux daa tëb dem att ji combat ba. dëgg la. <laughs> Cheikh xam nga làmbi démb ji. démb daal Jules Baldé laa gis ak ki nga xam di. waaw Ousa moom moo di uh-huh. uh-huh. Ousa. waaw yow yow yow yow yow xam nga làmb. wallaay dëgg la yow loolu boo ko rappelé. làmbi démb ji rek moo ñëwaat yaa ngi suivre làmb. la làmbi démb moo ñëwaat moo ñëwaat moo ñëwaat ñu bare ngi ci làmb ji. soo leen ko laajee. fekke wuñ xamuñu ko. wallaay dëgg la Cheikh. Mm-hmm. dafa am loo xam ne lii euh, ñun miin nañ ko mm-hmm. xam nga dañu tok ben moment ñu né xajul ci arène bi. loolu lañ doon wax. mané len arrêté. arène sénégalaise bi bi ci marché face fi la Robert Béré won ak Moussa Diame. deug la. sa bay buñ wax El Hadj Bassirou Diagne grand serigne ca jamono moko teggone deug la mais bi mu ko teggé Cheikh. Hmm. dañu dem séeréer ci dañu dem ci sengor ne ko ki dafa bëgg dafa bëgg yak yàq réew mi. Oh. daf ñu bëgg a nangam euh, entre séeréer ak séeréer. parce que moom euh, kii la woon boo xam ne promoteur. Hmm. da daan dox combat. mu boole leen fii. Hmm. ñu dem Senghor ne combat bi du fi am. mu dem seeti commissaire ministre de l'intérieur waxtaan ak ñoom. Hmm. ne leen dama ci def sama xaalis ba pare dinaa ko tëgg. ñu ne ko léegi loo ci da ngay signé da ngay signé lu ci lu ci xew. yow yoon dal ci kaw. dëgg la mu ne leen kon da ngeen may jox commandement bi. commandement bi. da ngeen ma koy jox ma ma yor ma yor peloton bi.

ba pare boo bëree ngeer boo daanee ngeer ma jël la ñu dem ngeer padd ko. padd kan. màng màng daanu waaw mu dëpp. oh kon il faut mu wàññeekuwaat liggéeyaat. mu moo dal Ama Balde nag exemple boobu laa koy jox. dëgg la dafa redoubler rek. Mm-hmm. te redoubler dalay yokk client. dëgg la gis nga li mu def démb. Mm. da koy yokk adversaire dëgg la waaye nag dafa ne sous contrat. digganteem ak. Gris Bordeaux le 7 janvier. Oh.

moo tax boo xoolee. Hmm. moom moo galvaniser waa këram. dëgg la galvaniser ay bokkam ak ay mbagam. moo tax ba mu ñibbee ñu koy tàccu. wallaahi dëgg la. kon loolu mooy. Hmm. mi ngi préparer contre Gris Bordeaux. contre Gris Bordeaux. Euh, ni mu bëggoon duggee ci pour des grands. xëy na amu ko waaye mi ngi ci cour des grands léegi. waaw ba tey moo Gris Bordeaux combat la. grand bu nar a mit ko ko jël cour des grands nga de. dëgg la Modou Lo. Hmm. génnagul pikin déedéet. xam kañ la fay dellu. Uh-huh. le premier janvier. digganteem ak. moo bo boo ñaax. laa ilaha illallah <laughs> loolu combat boobu. xam nga lu may jox. mooy Mam Njambaan. maam Njambaan ak kan. maam Njambaan daa dugg Pikine jël Ndiaga Diop. Mhm. Modou Lo mi ngi si 2-0. waaw mu ngi si 2-0. mu ngi ci 2-0 waaw mu des benn. mu des benn. maam Njambaan dafa dugg jël Ndiaga Diop. Uh-huh. jël euh, commando mi nga xamoon. Mm, commando. jël cek. Uh-huh. muy ñetti doomi Pikine mu daan leen ci benn ngemb. waaye El Hadj Ngagne Ndiaye làmb. Modou Lo booy ñaam yi. su ko ko mayee. mu def la maam Ndiamane defoon waa Pikine. mu nekk trois 0 ah attention ah, ah, am na 2-0 de. waaw <laughs> waaw am na 2-0 de waaye xamal naa leen tamit de. waaw. Eh, eh, booy ñaam yi ma gis. keroog bu muy tax ak Balla Gaye booy ñaar ak Modou Lo neexoon nañu. Mm-hmm. te combat la boo xam ne yaakaar naa mooy gën a tàng fuuf. xam nga ñaar ne la ñu boole. Mm. ñaari athlète. waaw ñaari athlète merci beaucoup El Hadj ñaari athlète la ñu boole xaayaan ku dégg séeréer gis nga ñoom ñaar. seen carrière. Hmm. amul lu toll ni tarfataay lu ñu ci fowee. dégg naa dëgg. ñoom ñaar waaw. te kaay ma wax la. ñoo bokk lu ñuy liggéey. gis nga combat boobu. Hmm. ku ko jël. Hmm. ku ko jël. ku ko jël di nga ub làmb. dégg naa dëggati. ku ci daan ub làmb. te gis nga Modou mii ma gis. xam nga lu ko lu ko may doole. muy dafa fexe ba fédéré. indi cohésion parcelle un ba vingt six. dégg naa dëgg. écurie bu fa ne. bu fa ne. am naa yow jàmm. am naa ak yow salaam te dina la dimbali dina la taxaw loolu looluy lépp loo loolu moo njëkk nekk force am mhm. wax naa ko fii ci émission mhm. man leen Pikine mhm. nañu xool li parcelle def nañu def cohésion autour du de Ama ñoom ñëpp ñu may ko force dëgg la parce que am na contact yoo xam ne. te wàññi pression bi. moom laa la wax pression boobu. waaw pression bi dafa ëppoon démb trop. ci ama ci ama mënuma leen ko bañal xam nga lu tax. ah pression bi dafa métti xam nga mënuma leen ko bañal. Ama Demba lay doog am combat de niveau combat au niveau. Mm. combat au niveau nag euh, mën nga ci am ay faay mais mën nga ci jàngate ëllëg su amaa di génn at gis nga mbooloo moomu mbooloo mu toll ni Ama. Ah. ku ñuy topp. Ah. Euh, gis nga say dirigeant. Mm-hmm. war nañu war nañu sooraale mbooloo may topp amaa moo feesal démb làmb ji. non kaay mu wax la. Mm-hmm. mbooloo may topp Ama. Mm-hmm. ku ñuy topp ku ne. mais attention dal na Siteu. dëgg la Siteu. dalu Siteu fii. combat am ak euh, bi muy daanu mais bi mu dellusee uh-huh. da ko rectifier amaa loolu rek la mbëree defal mbër na dellusiwaat mbër mooy defar mbër laa mbi démb ji hmm. dafa am lu mu ko war a jàngal te defe naa ne am na lu mu ko jàngal gis nga bu ko bu ko narul woon jàngal dara hmm. fa lay nekk di xataraayu mais sportivement amaa nangu na ne daanu na waaw moo tax gis nga euh, fan laa xamee ne daanu na hmm. xama ko boo demee ci reportage bi. reportage bi waaw ca fin ba. bi mu téye ndigg li. waaw laa xam ne bokkutul. loolu euh, boo bare na. ma ne Ibrahima Mbaye bëgguma mbër muy téye ndigg. te gis nga jamono bi ñuy jamono bi ñu gis nga jamono bi ñu taxawee di wax affaire de VAR. waaw Modou Lo ñëw na ba ci Ama Baldé. di ko tàpp tàppal di ko tàpp tàppal ni ko xoolal. <laughs> yaa ngi koy xool ni ko même ni ko même bu ñu demee VAR. waaw daanu ma la danaa bëriwaat ak yow lii la ko wax. tàpp da ko tàpp tàppal. Ah, delloo si ko yaa ngi koy gis. <laughs> Eh, <laughs> mais xoolal. waaw euh, na jàpp ne ko daan. Mm-hmm. mën na daan ku ne. mën na daan ku ne. billahi wallahi taalaay. keroog bi mu dajeeg ba mu bombar dajeeg bombardier bombardier boo demee tey ne ko combat bi gën a métti say combat naan la mag Modou Lo. dëgg la. kenn rek moo lëjal Modou Lo naam sax boof na ci kawam déggoo li ma la wax ma ne ko naam naam naam naam sax ba ba eh, eh, Bombardier boof na ci kaw Modou Lo waaye waaye daj na waaye Bombardier bi muy ñibbi dañ koo muur ndax bët yi bët yi dañ ko muur <laughs> man alaaj xam lan laay wax Modou Lo waaw Modou Lo dama yaakaar ne buy jóge parcelle di bëri ji dafay jaar ci cosmétique waaw jëndaale ay rouge à lèvres <laughs> waaw Modou Lo bu la koree boo siggee da ngay mel dañ laa rouge à lèvres sa kanam yëppay xonq xam nga Modou Lo loo koy ama démb bët bët yi dafa suulu xam nga loo koy misaal hmm. Modou Lo hmm. kuy mu weex kuy mu weex. waaw ah, bu baax nga kuy mu weex <laughs> gis nga kuy mu weex. waaw yewi sóoral mbëkk ma. dëgg la Modou Lo kuy mu weex la. kuy mu weex la. Boubacar. Euh, mais mais <laughs> mais mais non Boubacar tey nag vraiment boo bëggee dégg-dëgg. Ah. tey dañ la bëgg dañ la bëggoon may toute une journée nga dem noppalu. grand sonn nga oh. <laughs> mais mais yow la ñuy félicité grand. waaw waaw <laughs> non non yéen ñëpp la ñuy félicité. déedéet non non taxawaay. non non non du làmb ji dañoo vendredi. taxawaay yu bokkul de. Sorano. d'accord le samedi Fogeca. Boubacar dimanche waaw. Boubacar vendredi. yaa ngi King Fahd Palace.

di liggéey di tourner. Mm. di gis sa personne morale. Mm. dafa am lu mu lay def. wallaahi dëgg la. te démb yow xam nga défi bi ñu bi ñu amoon. Mm. moo tax toujours léeg-léeg ma jóg. xool la tàllal loxo indil nga ma ndox sax hmm? fekk du ndox laa doon lii mais yërëm nga ma manit waaye booba maa ngi lay ñaax yow wallaay ndeysaan maa ngi naan Boubacar a ngii hmm. ca fajar ba léegi mi ngi mi ngi mi ngi xoole c'est-à-dire man damaa defoon ndox ngay laaj non boobu boobu boobu yow laa doon waxal ba mu daw indil ma ndox yaa ngi dégg ma ne ko ma ne ko daa tombé sax ndax fi mu ne Boubacar dem fruit sax yor na ko fruit voilà xam nga loolu loolu loolu laay wax nii léegi bi ñu eh. ubbi mooy direction générale bi wallaay ndeysaan yàlla dimbali nanu hmm. am nañu ay kilifa yoo xam ne kenn yenuwu ci da nga yor déedéet ñoom ñoom dañuy feltoo wallaay dëgg ñoom ñoom dañuy waxtaan mm. ci réunion sax léeg-léeg nga ne lii du ma ci ànd ñu ne la accord ah, nañ ko defee nii wallaay dëgg waaye sëñ bi ku am loolu jàpp ci wallaay jàpp ci moo tax gàcce ngaalaama wallaay gàcce vraiment réussite bi am na solo mm. te it te it ma wax la leneen uh-huh. ca yeebaa ba fi ñu toog uh-huh. loxo moo ne ci biir. Mm-hmm. xam naa lépp kon alhamdulilah comme comme comme comme jànje la ñuy wax. Mm-hmm. comme joor ñëwagul. joor ñëwagul nañ bàyyi joor. waaw bu joor ñëwee. <laughs> ñu wax ci joor <laughs> ñu wax ci joor. <laughs> mais alaaji waaw félicitation waay. waaye leen di wax félicitation. fier fier mm-hmm. bi laay làmb gëj naa neexee nii. barke yonent bi. ah dëbb dëkk géej naa neexee ni dañoo dëbb dëkk bi de. waaw dëbb nañu dëkk bi bàyyee nag gis naa eh. sportif. Ah, ah. xam nga. bi Modou Lo étiré woo. waaw nee la étirement sportif laa gis. wax nga ma ko ah wax naa la ko ci ànd rajo bi mi ngi sama reportage bi. sportif. Ah. étirement bi ñu étiré woo. Ah. bi étiré woo. Hmm. ah man ak Cheikh dañoo gis suñu bopp saal. dëgg la physique pour y Cheikh luñu don yé bobu boobu dañu def réveil musculaire réveil musculaire. moy moy biñ moy biñ moy bi muy boros di di di contact. réveil musculaire la don def. contact bobu non mhm. réveil musculaire. muy ñaar mais bañu démé mes ba ci souf souplesse mon feñ ku njëkk a rapidité mode loo moo njëkk mo japp ci ginaaw mo fitti bi mu fitté dem ci flanc ba. la lay wone ama barakat la. waaw da ko da ko ci rek ak rek mhm. ba muy mhm. mbootu mbootu lu mu am jël la. Ah. ndax booy boot. Ah. sa loxo doo ko gàll. Ah. doo gàll loxo. mais mais mais mais mais bal yi ci làmb ji. Hmm. waaw bal yi. bal yi bal yi football bi. balu football yi waaw. man dama yaakaaroon mooy ñëw. wala Cristiano. du woon Messi de. Eh. man damaa defoon Ama dafay dem signé ji Barça <laughs> Modou Lo signé ji Real. <laughs> waaw waaw bal mais Boubacar gis nga démb ah. Eh. dama ni leen làmb ji làmb ji dafa laaj ñett yi la laaj. Hmm. muy rapidité. Hmm. vivacité. ak li nga xam ne moom moo di moom moo di ma nan laa am na nu ma ko waxee woon rapidité vivacité. physique physique bu dëgg endurance endurance physique ñett yi laa wax endurance ñett yi laa wax te ñett yooyu dafa daje woon ci Modou Lo daje hmm. gën na xawoon wàññi tuuti maasam ba oyof hmm. beneen bi ci tege mooy boo dégloo ci biir làmb ji maa ngi naan leen làmb ji benn song lay doon hmm. te bu song bi amee tàqli ko day am donc démb daal Euh, c'est vrai que Ama de ligue na lu mm. mais nag ki mu doon bëreel moo mm-hmm. mais c'est un grand champion. c'est un grand champion. Ah, modlo c'est un grand champion xam nga c'est un grand champion. modlo de dafa 8 démb. Mm-hmm. Ama ñëw ki mbokkam. Mm-hmm. Mm. Mm. côté parcelle. dafa wéet. ou à parcelle ñëw ñu ci stade bi ndax tension bi. waaw dañ ko xaar mu dem jëli victoire bi indi ko. waa parcelle ñewuñu waye wa Pikine dañu ñew en masse. fait stade bi del. del del del del del del del. ama andandok wa Pikine. mais wa parcelle ñewuñu ndax tension bi. kon modlo fofu jambar la fa. xam nga ñan la andal. waaw àndul public bi. Mhm. waye dafa and ak qualité bi. qualité bi. qualité bi mooy ñëwoon sa cumukaay la doo lay mbër. Hmm. xam nga xam nga Boubacar. Hmm. mbër bu amul cumukaay. te amoon na problème mu dugg sax si biir stade bi Modou Lo. moom laa lay wax problème dugg sax bi. am na ko dugg rek ci biir stade na boobu problème hmm. waaw yàgg na fa. loolu xam nga mbër bu amul cumukaay gëstoo lay daaneel. xam nga doo lay mbër. ñu ko dara dëgg la. ña ko dar ña ko dar mais mais mais waa parcelle. Mhm. stade bi daf leen féete. waaw. waaw xam nga xam nga waa Pikine <laughs> ñoom moom stade bi. ñoom stade bi mais nag Boubacar. waaw booba nag ñoom moom arène ba. da ngeen waroon jël Dakar dem dikk. waaw ñu dem parcelle. waaw ñu doon nit ñi di indi Dakar dem dikk eh. am nañ billet. <laughs> mais tension bi. am nañ seen billet. mais tension ba tax seen yaay yi du ngeen dem. seen papa yi ne du ngeen dem. waaw waaw dama lay wax. làmb ji. Hmm. bant du ci damb. bu ñu tiitati. billaahi xoolal. ñun eh, sécurité bi dispositif bi gars yi jël ci sécurité disposition sécuritaire u Sénégal. Hmm. man moo tax ba ñu paree. alkaati bu ma gis jëndal naa la café billaay dëgg la borom café yëpp maa leen vidé avant may génn billaay ñooy jàmbaar <laughs> fu ma gis nga yor kafe ma dajale ma de la joxul xam nga démb li police def ndeysaan xam nga démb li police def hmm. gendarmerie gendarmerie def ko waaw mooy que ne dañoo indi ay nit nit ku nit ku nit ku nit ku nit ku tegul ci yoon nit ñi rek la mhm. ñu indi ay fas mhm. ci biir nit ñi ku ci yor jukkay fas fas yi rek la la mhm. indi ay xaj ci biir nit ñi ku ci yor jukkay ma jukkay loolu loolu lijjanti la loolu lu am solo la ci loolu lu am solo la démb ci làmb ji moo tax police ak la gendarmerie dañ leen di féliciter bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi ñu def fa lañ nekk ba ñëpp pare ñu doog a ñibbi mais dafa beneen bataille beneen bataille psychologique boo xam ne Boubacar dafa am ci làmb ji leen daal naa la ko wax ma la Modou Lo du ragal. moom laa lay wax. bi ko waa ji tëmbalee affaire bi. Uh-huh. ñu taxaw teg seize bi. Uh-huh. waa ji am tëmbal ko ndox mi. waaw autorité yëpp taxaw. Uh-huh. da ko fekk sox ko. waaw da ko ñam. <laughs> da ko fekk ñam ko. waaw ci biir nit ñi. ci biir nit ñi moo gaaw. mooy waa ji ñi ñi ñuy tuddee làmba ji taxaw. mooy waa ji ñëpp taxaw waaw. waaw waaw waaw. xam nga bu doon bu doon man dama naan bàyyil noonu. garaaw parce que autorité yaa ngi taxaw bu doon man. il faut que caay caay dama naan autorité yaa ngi taxaw dama wax dara. mais Modou Lo dañ ko sànni mu wiiri autorité yëpp. wiiri arbitre yëpp. ñam waa ji. ñam waa ji ba pare daal di dellu. moo tax waa ji dellul bul yàq sama làmb. wallaay wallaay parce que Modou Lo xam ne ne bu ko ko Ama defoon. Mm. superviseur yaa nga fa. Mm. dañ koy sanctionné. Mm. waaye kooku du licencié. làmb bu amee. gis nga ñi ngay gis ci géew bi. amuñu licence. parce que ku am licence dañ lay tere géew bi hmm. loolu ñu ngi ko jële woon ci Balla Gaye Modou Lo mii hmm. bi Sa cees di bëre ak euh, Zarko hmm. te Modou Lo ak Balla Gaye di sëlëxante suuf ci la ñu tere bépp mbër bu mbër di bëre ku am licence doo dugg ci géew dëgg la moo tax Modou Lo soq dara du ko ci fekk mais mais bataille psychologique bi laa lay wax li nga xam ne moom la Modou Lo utiliser démb ci wuyu ma Cheikh Sarr waaw Modou Lo du ragal mais moom laa lay wax grand xaar ma wax bi nga xam ne dama lay wax bataille psychologique bi nga xam ne moom la Modou Lo di utiliser ci arène bi. bi ci njëkk mooy ñëw na takkul dara. benn foofu war na ko ni takkuma dara tey. Mm. damaa ñëw pour doom fenn foo jàpp ci man. Mm-hmm. danaa danaa bëri yow ba nga tiit. benn deuxièmement boo xoolee euh, Modou Lo bi muy jël roi des arènes. Mm. Eumeu seen la bëreel du koo dóor mu daanu. fa la ko jëlee Pikine. Modou Lo ay bougeem dem ak dikkeem ay rafal la doon dóor. si da ngay gis muy muy muy neexal loxo yi. tak tak tak loolu mbër ba war a bëreel te mu te mu dóor sa dóor sa mag. wala dóor sa poulain mu ne club mu ñëw tey di jël loxo yi di dóor ay rafal kii mi ngi lay préparer psychologiquement wane leen boo indee xeex du baax ci yow. moo tax bi mu déclenché xeex bi rek la Modou Lo jiitu ko ca. bi ñu demee yeeba liggéey liggéey bu rëy. bi ñu demee yeeba xale yi nag nee nañ nee nañ Modou Lo heureusement que. Euh, unité 22 la yem moom. <laughs> bi ñuy parce que booy bi ñuy conté dóor booy dañuy compter dóor yi. mais dóor yi egg na 26 da ko dóor ba unité nee nañ parcelle unité 1 la ko dóor ba 22 mooy bi mu ko sëgalee noonu 22 dóor la ko mais boo compter waatee yeneen dóor yi yeneen dóor yi avant ñuy àgg na 26. 1 ba 26 la xam nga Cheikh. <laughs> Cheikh Modou Lo ndaanaan la. Cheikh ah. euh, am na loo tim foofu ci këyit. waaw. Mhm. soo xoolee. alaaji Ngañ boo xoolee 2006. histoire ñaari mbëri la ma jox nii ak tey jii. Mhm. Mhm. xoolal xoolal Modou Lo. mi ngi mi ngi infligé euh, Ama Baldé troisième defetam la te Modou Lo trois défaites la am. trois défaites waaw. démb moo doon vingt quatrième combat Modou Lo. vingt quatrième. démb moo doon seizième combat Ama Baldé. xanaa ñaari defet yi bala Gaye ko jox. ñaari non Balla Gaye ko la jël. Balla rek. xam nga lu am ci làmb Balla moo la jël. Modou Lo Modou Lo Modou Lo la jël Eumeu Sène la jël waa Pikine Eumeu Sène la jël Bombardier la jël Bombardier ak Balla Gaye ak Balla Gaye <laughs> lii moo ne ci làmb ji <laughs> lii moo coowu làmb ji et puis des fois des fois su may teg des fois su may teg des fois su may teg woyu Pape Diouf bi bi mu naan du dañ dama leen di morse bi dama ko ndengeñ comme ni Balla Gaye ndengeñee Modou Lo Modou Lo waaye ndengeñ ko comme ni mu loo sonalee ki nga xam ne moom moo di euh, euh, kii euh, nu mu tuddati Eumeu Sène waaye ndengeñ ko comme ni Eumeu Sène sonalee Balla Gaye noonu laa noonu laa ndengeñee morceau xam nga démb c'est que lamb ji kenn ku ne am sa bête noire xam nga démb Cheikh at ah. ah. xam nga may ma minute ma waaw parce que da nga wax ci bëri bi mm-hmm. xam nga Modou Lo bi mu jël démb mm-hmm. wax nañ ko depuis yeebaa wallaay depuis yeebaa dañ leen posé question mm. ñu ne Modou Lo mm-hmm. amaa day sëkk talaate waaw te yow bëggoo ku la sëkkatal te Ama Demba dafa sëkkatal Modou Lo da ko sëkkatal te magul Modou Lo bëggul ko ko sëkkatal déedéet bi mu ko sëkkatalee nag uh-huh. ci la Modou Lo door rafal dégagé bi mu rafal dégagé ba mu ba mu xobee Ama ak mën xeex Ama des accès uh. ci la dugg ci gardam ah. mooy loolu mu dugg ci gardam mm-hmm. ba Ama bëgg ko mbaar mm-hmm. xam nga Ama lu mu ko bëggoon def mm-hmm. na mu defoon Papa Sow da ko bëggoon geg mbaar ko et pourtant xaar waaw et pourtant <laughs> waaw pourtant bi bi arbitre sifflé waaw Ama dox ci kawam. waaw dóor rafaal Modou Lo dañu ko déedéet. dégg nga déglu da ko da dicté. waaw ni ko bi baxut waaw fi nga dugg baaxut. waaw daal di koy jëg gis nga première première première ko korsu Modou ah. deuxième bi bokku na ci li gën a affolé gis nga bi Modou deuxième dóor bi. bi modlo bu Modou bu ah. Modou Lo xobee. Mm-hmm. bi mu xobé mm. Ama Ama désaxé. Mm-hmm. ci la daw dajeeg mom Ama daw gal ko loxo ba. waaye mboot. bi mu ko gàllee loxo bi. Hmm. Modou Lo mel ni ku flexionné. <laughs> Ah, ah, ah. fitteeg moom dem ca wet ga. laay bi mu demee ca wet ga nag. di gàll mot nag ci la ko suruxal. uy Ama dafa surux dem bi mu suruxee nag fan ngay xamee ne Modou am na dooley biir. il gis nga Ama ni mu toll. mu mu mu mu gekkoog benn loxo bii di perseek moom ay ay. ay kii nga xam ne waaw dama ni man lenn rek laa doon wax. Hmm. Modou Lo mii fu muy jaar Ama Baldé. moom ndax Ama Baldé ni mu toll. ni mu toll bi arbitre lii rek laa doon wax fu mu koy jaar. bi arbitre di waaj a sifflé. Mhm. gis nga ni ñu tolloo xanaa. dafa sekki. gisoo ni ñu toll ñoom ñaar. amatul différence. <laughs> Cheikh Cheikh. waaw Ibrahima Mbaye maa toog ak moom suma consultant. Uh-huh. mu ne ma xoolal amatul différence. Uh-huh. te évidemment amatul différence ñoom ñaar. dëgg la te amaa xam na ne. Mhm. man dama defee amaa mi ngi doog a jàng Modou ci géew bi bi arbitre waaw lay doog a xam ki man loolu laa jàpp. dëgg la man loolu man. Mhm. mais kon bu arbitre du dox ci kaw Modou Lo. Mhm. du dox ci kaw Modou dafa waroon toog déglu ko. da ko waroon déglu changer stratégie ñu ne tey Ama lu tax mhm. déglu ko xool lu muy def. dëgg la ba mu moom it xool ndax dina déclenché wala du ma déclenché. ndeysaan waaye lañ ko doon wax la def. te Modou Lo gis nga réaction bi mu def. dëgg la dafa xeex ak moom dégagé une deux. ba amer d'exercer mu daw ñëw. dëgg la bi muy ñëw boo xoolee point d'appui Modou Lo. Hmm. ma nga ca suuf ma nga ca ma nga ca gannaaw. waaw bi muy bi muy bi muy déqi dafa dafa dafa dafa ñuug. looy jóg loolu mooy avion buy buy déqi. buy déqi day am doole. Ama Baldé démérité wul. parce que làmb joo xam ne pré nga ko préparé nga ko presque. cinq presque cinq ans. ñuy coow ci làmb ji di ci coow des fois ñu dem ba ni ginnaaw suba lay am. nga liggéey liggéey ba tollu fenn fi di xaar sëgg jékki-jékki ñu ne combat bi amut ñu dem ba dernier moment nga xam ni foofu mbëri sonn nañ wax dëgg yàlla tey jii muy Ama Baldé ak Modou Lo lu luñ leen fayoon ci làmb ji delloo nañ ko ci làmb ji hmm. tey euh, Ama Baldé boo ko fëggoon xëy na reliquat bi mu war a jële ginnaaw suba te xam naa bu ko jëlee ay bor la ciy fay Modou Lo aussi bi mu dese bu ko jëlee ay bor la ciy fay ah, suba suba lañ koy jëli waaw parce que la ñu yoroon yëpp def nañ ko ci làmb ba ba seeni mbokk ñëw dolli leen mooy li may waxaat rek mooy li may waxaat rek mooy ki ne Ama tey mën naa ni pression bi ko Pikine teg ak i fansam ak i mbokkam pression bi moom metti woon mhm. mais nag jàmbaar la mhm. jàmbaar la parce que euh, mën naa ni moo feesal stade bi benn mhm. Ama balde moo feesal stade bi Ama Baldé bàkkoom ba neex na lañ ko tëggalit neex ñoom pagaay lañ ko tëggal neex na Ama Baldé ci boobu moo bëri bëri bi ndax bi arbitre sifflé moo dox déclenché Euh, kii euh, Cheikh. waaw beneen bi ci tege mbot ma. la ah. indi wàcc ba ci suuf lépp amaa Baldé Ama indi. waaye nag tubaarkàlla finalité nag moo doo bëri. Ama bërikat la. wallaay dëgg la. kaay ma wax la. DG. Cheikh. <laughs> Ama Ama bërikat la. Mm-hmm. Euh, gis nga bi muy tëgg mboot. Mm-hmm. nga xam ne kat la da ko daj rek da ko daj. Mm-hmm. rek ak déclenché mode bi. Mm. mais bi muy déclenché mode loxo bi da ko gàll ci kaw. dëgg la moo tax Modou daa sotteeku. wallaay dëgg la mu rëpp. Mm-hmm. bi mu rëppee nag mu mu téye ko fa foofu. Mm. Modou bu amul woon doole. Uh-huh. Ama day génn. dégg naa dëgg. te bu génnee arbitre dañuy dañuy dañuy dañuy euh, kiiwaat combat bi mais fa mu fa mu ko téye nga xam ne Modou am na doole xoolal mboot maa ngi. mboot mi gis nga. gis nga xoolal xoolal photo bi xoolal loxo loxo xoolal loxo Ama fu mu nekk. Uh-huh. day sotteeku. téye na sax ci ci ci kii bu verte bi. Mm. waaye lii Modou da ko yor ci ngembali rek. mais tànku kan moo ne ci kaw nii. tànku Modou euh, tànku kii tànku amaa moo gàll mbot. moo gàll mbot mbot boo amul dëgg dëgg tax boo amul dëgg dëgg technique. voilà gis nga moo gàll xam nga tànku Ama moo féeti nii ci kaw. moo féeti ci kaw waaw. Modou loo Modou Lo moronu léegi xam nga lu ko lu koy lu koy lu koy lu koy xeñ lu koy xeñ euh, mboot mi. Mm-hmm. loxo bii fii mu dugg parce que Modou da ko jiitu ci ci poxotaanam moom. waaw poxotaanam poxotaanam voilà Ama Balde Ama de tamit Modou da koo xañ fu mu jàpp gisoo ca ca ca ca morse bu vert verte ba la jàpp moom la jàpp te morse bi Modou takk ko da koo yoor <laughs> rek da koo yoor rek da ko yolomal léegi nag gis nga morceau bi mhm. fii la ko jëlee ah. indi ko fii ah. léegi loxo bi ah. day sotteeku lii nag moo indi rëpp bi ah ba pare Modou loo daal di jël loxo gis nga di jël loxo loxo càmmoñ ba taf ko ci taf ko ci nopp nopp nopp Ama Baldé da ko gekk li mooy gekk waaw li da ko gekk nga yaay làmb waay ko gekk <laughs> nga ni da ko da ko gekk da ko da ko gekk waaye gis nga gis nga gis nga lu vert lii eh. ak lu vert lii waaw ak lu wert lii. ñetti wert yi. Modou fi mu ko jëlee sori na de. Ah, te ñoo lijjanti foofu dem fa. waaw ah, déet xoolal rek. da ko jàllawle. ñetti morso yi. da ko jàllawle. xoolal loxo gauche bi. Mhm. xoolal loxo droite bi. Mhm. xoolal euh, ndigg li. Uh-huh. lan la ko tojee fii lu zone. lu zone ngembali. zone mhm. zone waaw da ko jàllawle.

ci li nga xam ne mooy combat Ama Baldé Modou bala mais a boobu. am na ay combat yoo xam ni. toftal na ci. laata laata laata. laata mu loo Ama Balde. am na ay combat yoo xam ne jot na jot nañ koo bëri. mu nekk ay combat yu neex. préliminaires yi préliminaires yi diggante yaawu jàll. ak euh, ki nga xam ne moom moo di euh, euh, vic kii. volume bu Gambie. volume bu Gambie <laughs> ndeysaan ñoom ñaan na xam li ma dama benn njàngat. ci diggante yaawu jàll ak ki nga xam ne mooy volume bu Gambie. volume Gambie waaw. <laughs> li ma ci gën a neex ba ñu bëree ba noppi. waaw. yaawu jaal da ko jox drapeau euh, euh, match da ko jox euh, mayo Sénégal. waaw volume bu Gambie daal di koy jox maillot bu Gambie. waaw mu nekk loo xam ne lu rafet la. acte bu rafet la <laughs> waaye tamit di encourager yaawu jaal. Uh-huh. su ko neexoon mu ne ndaw la. sama mm-hmm. moromu doom la du ma mm-hmm. bëri ak moom may da koo jox chance. waaw loolu am donc loolu lu am solo diggante Sénégal a Gambie. waaw yaa làmb dafa yàgg. Mm-hmm. ak mbër yoo xam ne. du ñu ub làmb. waaye dañu am xoromu làmb. dëgg la yaawu jaal ci la bokk. Euh, boo di RFM ci la bokk. dëgg la. Euh, gaynde mm-hmm. danga nga fàtte gaynde gaynde ndeysaan l'italiano l'italiano <laughs> yaa ngi dégg <laughs> euh, boo demee trente ans ci ginnaaw mm-hmm. booy mbay la woon ak booy melax dëgg la booy mbay booy melax ak booy melax da nga fàtte kii guerrier xanaa guerrier mbër yooyu dafa yàgg ci làmb wallaay dañoo yàgg ci làmb amoon nañu mbër bu ñuy wax double tête double tête ñooñu mm-hmm. ñoo daan pré quatrième combat uh-huh. dafa yàgg am xorom dëgg quatrième komba uh-huh. dafa yàgg am xorom am na mbër bu ñuy wax Gundur. Euh, euh, James Brown. <laughs> non la ba kii James Brown. James Brown kay ñoom ñëpp ci làmb ji quatrième combat lañ daan bëri. <laughs> am na xoolal ay kilifa yoo xam ne. Uh-huh. bu ñu seetaanee combat yooyu dañuy uh-huh. ñibbi. ñoo ñoo leen daan indi. James Brown kay James Brown. oui ak gi <laughs> mais alaaj ngañ waaw mën na mën nañu est-ce que du ñu am vidéo bi waaw ñu ñu ñu xool combat bi ñu reporté ko ñu beneen bi ci tege mooy ci kanam tuuti dinañ jël auditeurs yi waaw waaw ci 88 628 38 38 parce que ñoom it xam nañu làmb te démb jàng nañu làmb ji te démb am na ñu xam-xam ci làmb ji ah ah. Euh, euh, ñu xool alaaji ngañ ayca ma bàyyi la nga reporté làmb ji ñëwal ayca ayca ñëwal ay mhm. ayca jox ma mhm. image bi fii jox ko image bi jox ko ko Moro jox ko jox ko image bi. ayca waaw ñu ngay xeex fii la déclenché Modou fii la déclenché xob ko. Hmm. dóor lancer gauche Ama lancer ko droite. voilà mu daw jël ko da ko jël ca kaw. Hmm. daan loxo ba jógewu fa. Ama gàll ko mboot mu surxul ko. gis nga gekk ko nag. gekk ko fii gis nga gekk ko. Hmm. gekk ko ba pare li mu doon éviter mooy Ama génn. mooy Ama génn moo tax mu mu mu ko. jël tànk bi génn ko ca gannaaw saako ya tànk ba. gis nga tànk Modou Lo. tànk Modou Lo waaw xoolal ba. attekat ba ñëw mhm. gis nga attekat ba ñëw waaye waaye démb li mu daj li laay li mu daj démb gis nga xeex baa ngoogu dañu xeex mhm. te xoolal euh, xam nga lu xam nga amaa benn loxo lay xeexee moo tax ah. droite bi lay xeexee benn loxo lay xeexee mhm. Modou xam na ko moo tax Modou Lo bi muy dem côté bee la jaaree gis nga droite ba la jaaree parce que droite ama jàpp rek la waaw gis nga waaw moo tax Modou bi mu koy jël da ko jëli ci suuf da ko raas yéeg ak moom arrièreal tuuti arrièreal arrièreal ba pare xañ ko jàpp arrièreal vidéo bi arrièral ma ko arrièral ma ko moor arrièral ma ko arrièral ma moor arrièral ma arrièral déedéet des moor arrièral bàyyil defal ma ko ndànk nag voilà arrêtel foofu arrêtel arrêtel fii arrêtel fii moor arrièral tuuti arrièral tuuti tuuti rek as lëf tuuti rek ma wan la fi fi mu déparé xoolal ñëwaatal ah, ah Cheikh waaw waaw lii gis nga fii uh-huh. Modou Lo xam nga lu tax mu mu ne groupe toog waaw da ko raas pour mën a jóg ak moom ah deux appuis la jógee moo tax deux appuis mais nag lii bu koy Modou bu mu koy faral di def. déedéet ay wóolu dooleem. daa xam ne xoolal ca demal ndànk demal deux appui lay jóg day day coŋol ba pare jógal ñawal gis nga non dafa ëpp. congal ndànk rek ndànk rek day congali oh. day congali a ca ñëwal fii fan si Modou Lo yëpp xam fii droite lay congali gis nga jóg su congali woon gauche mhm. su gauche bi congali woon mhm. Ama da koy delloosi dégg naa dëgg da koy dëpp da koy delloosi jaaxaanal <laughs> moo tax mu congalee droite parce que bu congalee woon gauche Ama koy delloosi waaye dégg la aj ngañ muy génne congali waaw xanaa loolu us naan songali nga songali nga songali nga non songali nga sax mooy pare nga ah waa kii congali la songali ak congali <laughs> kooku àll sekk la. arrière al tuuti sangali nga sangali nga sangali mooy vidéo bi arrière al ma arrière déedéet sangaliwul de. mais arrière al uh-huh. ma. non action bi Cheikh. Cheikh uh-huh, action bi fii la bërëb jeex arrière al. Uh-huh. arrière al fii la bërëb jeex indi laatal ma indi laatal ma sukk bi sukk bi. jox ko sukk bi jox ma sukk bi rek. jox ma sukk bi. fii nag moom képp ku doon supporteru euh, Modou Lo sa fit sa fit sa fit sa fit bi dem na. jaare lay nuyu ca Kolda Adja ñu ngi koy nuyu baax a baax xoolal gis nga gis nga. Mm-hmm. dafa coŋoli. Mm-hmm. bii. Mm-hmm. bii mooy appui bi. waaw lii moo rey Ama Balde droite Modou Lo oh. mu njëkk a yëkki. gis nga bu yëkki woon bii. da koy delloosi. dëgg la moo tax mu xoolal avancé tuuti demal demal. demal xoolal mu ngay jóg ak moom xoolal. jógal a ca ñëwal. ñëwal. la ilaha illa allah ñëwal ah, rek mu jóg gis nga mais Modou mais bi mu bu jógee bi mu jógee Modou dafa dafa mel loxo wàccaat dafa njuug dafa njuug dafa njuug pour jël jël tànk droite ba ah. dugal ko ci tànk gauche booba xam na ne da koy bor tànk gauche bi teg ko ci tànk droite ama xam na ne si suuf ama moo ëpp avantage mhm. ci mboot bi waaye ca kaw moo ëpp avantage ndax loxo moo féete ci biir waaw léegi nag Ama bu xamee woon lii. Mhm. dafa war a dafa war a war a wañ Modou Lo da ko waroon wañ. pour mhm. pour mën a génn. Mhm. mais booba Modou Lo téye na ko ca kaw. ca demal demal demal gis nga mboot maa ngoogu gis nga loxo Modou ngi ci kaw. billaay Ama amul am Ama dafa amul fu mu jàpp. gis nga geg boobu nga doon wax. Uh-huh. geg bi Modou Modou Lo da ko fémiti geg ko fa nag. dootul bokk <laughs> da ko éliminer. ba pare taf benn bët bi. da ko éliminer. oh, oh. da ko éliminer ca loxo góosu Modou moo éliminer. côté côté droitu ama fël ko. waaye na kër yi bëri waaye ci alaaji ngañ jaañ waaye na kër yi bëri. demal na kër yi bëri ci alaaji ngañ jaañ na kër yi bëri. ay ca demal waay demal eh. ay ca gis nga gis nga. Eh. fii la nag xam nga lu am solo fii. mooy réflexe. bi nga doon yow réflexe bi. rapidité bi mooy jàpp ko mu bañ a dem bi. parce que amaa fii. Mhm. mënoon na jàpp génn. dëgg la te bu jàppoon génn dañuy soufflé waat combat bi. Ah. <laughs> moo xañ ko ko moo doon ne ko kirtim kirtim baa ngi nag. mooy geg bi. kirtim non non geg bi romb nañ ko. léegi dafa bàyyi geg bi loxo bi moo gegoon. loxo bi geg nag. moo gis nga demal. demal demal da koy dindi ne ko kirtim jàpp. oh ama jàmbaar la nag. baa nga ca ndiggu amaa léegi. bàyyi na loos ba. ma nga ca ndigg la léegi. laay <laughs> laay la alaaji ngañ yaay làmb <laughs> mais alaaji ngañ. waaw li nga reporté reporté mosoo bëri. Euh, man day dama juddoo ci làmb rek. sama kër doon salle de musculation bii ngay def lii ngay def xam naa ko bu baax. dëgg la. man damay entraîné ba léegi. bu léegi nii. damay entraîné ba léegi mais daan nga bëri. non bëri mën naa ko. waaye euh, demuma arène. <laughs> waaye nag bëri bu bëri bu ne yu ëpp seetaan naa leen. dëgg la. ndax ku daan nekk ci ñoom Birahim Ndiaye. ñuy entraîner uh-huh. di bëre uh-huh. nga ne sen biir uh-huh. ci ñoom biir bu jor nga nekk sen biir ñuy bëre dem ci yalla yalla nako yalla yeureum amin ya rabbal alamin biñ koy jangal yow xam nga limay wax wallahi deysane biñ koy jangal euh, large hmm. ak demi large mu koy nat ci poids hmm. sama biir kër ma ngi taxaw allah akbar ak ñeneen abandukati jóob ak may dégg hmm. am combat bo xam bi mu koy préparer suñu kër lako préparer ak yeneen ak yeneen yu ma la mën a wax. yaa ngi dégg. mais ñu àggale combat bi. waaw ñu àggale combat bi bi geg bi dañee. waaw Modou séq ko xañ ko biti saako yi. ba pare jël benn tànku tànku eto ko nag léegi. eto gis nga ndomb li da ko mais kon kon làmb ji gàgga ngi ci eto ngi ci. da ko da ko ko. ci digg bi. Ah. gauche bi gauche bi moo tee Ama Baldé sar dem kon day génn. Hmm. te bu génnee zone de kii bi arbitre day sifflé waat. léegi nag Modou Lo mhm. li muy xeex ak moom fii. Mhm. day bañ mu génn. day bañ mu génn. moo tax mu jël mais nag Modou Lo. ngañ ba tey mi ngi sóoraale quatre appuis. mais ci boppam am na lu ma gis de. man man gis naa ni Modou li muy xeex xeex. lim ko eto eto eto. Mm. Modou Lo mi ngi jël ba tànku tànku droitam bi. waaw talal ko. waaw jël tànku gauche bi xaw ko banque mais di dawaale. quatre appuis. waa léegi waaye nag séq di dóor. léegi léegi Modou day gën a bootu. dafa xoolal dama day gën a bootu ci kaw ama gis nga mhm. gis nga day gën a bootu mhm. ba pare téye ko fii ba pare etu ko gis nga tànk bii gauche euh, droite am bii mhm. moom lay fexe muy duggaat ci biir da koy puusaat ci biir yaa ngi dégg voilà fii nag gis nga oh, boy bi attekat ba ñëw ndeysaan xool ba mënu koo mun wallaay xool ba boy bi il faut waa sot man boy bi bu ko kenn blâmé non dama ne sax kii dama ne sax kii alkaat yi xaw ma fu mu leen jaar <laughs> te xoolal papis xereñ xoolal ñëw fii papis xereñ am na benn image fii. Oh. am na benn image fii. Mm-hmm. alkaati yi dañu jël Papis Xarañ génne ko. waaw dañ ko génne waaw. dañ ko génne parce que ñu ngi koy xool réaction mm-hmm. xam nañ ne moom xool baa ngi ci Modou mais mais booy bi aussi tamit. Mm. Euh, man des fois du ma àtte nit ci. Mm. Euh, jëf ba damay àtte tolluwaay. waaw tolluwaay. moom boo xoolee lu ci ëpp moo yoroon ci Ama Balde. déet moo yor kii bi. moo yor lépp yor laar yeeg ñëpp moo ko yor. moo yor bu pokola jarbaat bi. Oh, ndeysaan. ñoom moom la ñu wóolu. ndeysaan gis nga mbër. amoon yéene rek. mbër ku mu wóolu. Oh, koo xam ne boo deewee. Mm-hmm. gis nga kii bu amaat deewee mu dee. mu dee li mooy xaritu benn bakkan. waaw ah, benn bakkan amul. Euh, lu am. ah Cheikh fu benn bakkan amee. ah fii kat benn bakkan la. benn bakkan boo amoon bu ñu la suulee mu des fa. mais mais. <laughs> benn bakkan mais mais El Hadj Ngagne Diagne <laughs> lii nag lii. Eh, lii benn bakkan waaw. kon bu ñu ma yóbbu armée ya buñ ma suulee. waaw Cheikh Fall bàyyi fa bakken mais nag kii nag xam nga comme dafa gis ne Ama fi mu toll nii Modou Modou étonné ko. waaw di dóor dóor yàgg. mu mu xalaat ni bakkan mën na faa des moom mu daw joxe bakkanam. waaw déedéet jàmbaar la de. mais déedéet waaw mais bokku ca. xaritu benn bakkan dee bokku ci. <laughs> ndeysaan ndeysaan mais nag après service d'ordre bi ndeysaan am na lu ñu def ak moom. waaw waaw waaw dañ koy xam nga ci tàng tàng bi. waaw lu yàgg tamit. da nga koy sauver. ndeysaan moom dañ ko doon sobee rek. ah mais nag bi bi ci biti. waaw non dañ ko doon sauver xam nga. sauver bi ñu koy sauver. Uh-huh. dina ci ñamaale. alaaji ngeen alaaji ngeen waa waa ji taxoon ci kaw Modou Lo. waaw sonn ci ci kaw ci ginnaaw Modou Lo. man xam nga lu ma métti. mais laalul suuf. xam nga lu ma métti. Uh-huh. laar ya mu yóbbuwaale. Oh. laar yëpp sotteeku na laar yëpp la la ñàkk. te laar yi am na ci yoo xam ne ñu ngi fonctionné ba tey. ah déet am na laar yoo xam ne kay dañ koy wutiwaat. <laughs> mais mais Cheikh. tubarkàlla. Cheikh waaw man damaa bëgg kër yi bëri na kër yi bëri. ndax Alaaji Ngañ Jaañ lim ñuy décortiquer ci làmb ji man mii sax maa ngi koy doog a gisaat tubarkàlla mu eto ko. waaw da koo eto jël tànku ndeyjoor bi. génne ko ci ginnaaw saako yu njëkk yi. waaw ba pare banque benn bi. waaw daal di daal di daal di. non benn bi benn bi gauche bi. Mhm. gauche bi. Mhm. Euh, toujours mooy delloo si droite amaat pour mu bañ a jóg. Ah. ko teg gis du jog da koy da ko kale fii foofu kon da ko jangal saru wa mu da ko kal xolal mhm. day bañ ama jog day bañ ama am appui pour jog deug la ndax oh. ama neewul dole de déedéet dama lay wax ama jambar la de neewul dole modlo modlo Modou Lo dafa éliminer xoolal mhm. dafa éliminer réaction am yëpp mhm. bi ñu demee tax mënul mënul fiti gis nga droitu Ama gis nga droitu Ama ak gauche Modou Lo mhm. tànku droitu Ama ak gauche Modou Lo mhm. gauche liggéeyam mooy téye tànku droitu Ama pour mu bañ a jóg mais ma ngay dóor nag voilà gis nga tànkam bii tànku tànku gauche Ama mhm. xool ko tànku gauche Ama mënul oh. la mënul mook mook droite côté côté côté droite bi gauche bi la euh, bàyyi ko gauche ma ngay dóor de voilà gis nga gis nga maama di maama di ñëw na sa doom ñëw na waaw gis nga. maama di ñëw na sa doom ñëw na waaye di dóor. gis nga bu ñëwee. gis nga. Mhm. voilà lii nag moo indi moo indi ama. Mhm. Euh, jeex jeex jeex ci suuf. Oh. voilà jeex ci suuf. ama jàmbaar la te gis nga xoolal euh, kii gis nga Cheikh. Mhm. yow miy def yow miy def musculation. gis nga biceps yi Modou Lo yor. il a bien travaillé. il a bien travaillé. gis nga biceps am yii. gis nga bi ma gisee mu taxaw ma xool cuisse bi. Uh-huh. ma gis ni mu daggee. Ah. ma ne dëgg la Ama am na am na am na doole. Mhm. volume bi baax na. Mhm. mais Modou doole ci ci biir la ne. billaahi xoolal gis nga gis nga booy entraîné. Mhm. Modou Lo est-ce que gis nga mu def ay euh, kii mu def ay cent pas. mu def cent pas. xam nga lu ñu war a moytu. mooy. Euh, jour à jour combat. jour combat ngay daw ay cent pas. dëgg la baaxul ci mbër. gis nga réveil musculaire. ay ay étapes yu ndaw la ay yu ndaw la rek. parce que loo liggéey. banque la. Mm-hmm. banque dëgg la. gis nga lu ne boo ko liggéeyee day dellu fa mu nekkoon. dëgg la gis nga bi mu ko soxlaa. Mm. bi mu ko soxlaa. Mm-hmm. pour mu génn. Mm. yaaram géy la woo. contact ak moom. waaw gis naa ñu contact. waaw muy wiccax loxo yi ndax. di mooñ di mooñ loxo yi. door muscle yi waaw réveil musculaire si ndaw yi ak yu mag yi. voilà jóg waaw. nga xool nga xool boo xoolee foofu da ngay gis trapèze yi. barke yonent bi nga xool épaule itam xool épaule rondeelu épaule itam nga gis nu mu commencé xool bras avant bras nu mu commencé jóg uh-huh. nga xool musculation yi nu mu commencé jóg mm-hmm. ci laa xam ne kii entraîné na barke yonent bi parce que banque musculaire mm. ñu ngi koy commencé delloo li mu liggéey dégg naa dëgg alaaji sa alaaji noonu la alaaji ngañ jaaj waaw maamadi parce que léeg-léeg léeg-léeg ndeysaan nga gis mbër moo xam ne day téye bu téléphoné yeneen sidit yeneen sidit dañ naan ko saa yi mënu ñu ñëw parce que ñëw parce que liggéeyu fa lu lu tax sidit boobu jox ko loolu léegi dañuy dem dañuy dem journal mhm. bu ñu paree journal ñu dugal Mamadi ñu waxtaan après ñu jël quelques réactions internet yi parce que internet yi ak auditeurs yi ñoom it am na ci kàddu mais alaaji ngañ jaañ internet yi li ñu la dugal ci ay kër waaye kër yi yàlla na la dal waay bëri na làmb ji de non bëri na làmb ji mais mi mi ngi moom mi ngi yem ci éto toll ak fu Modou Lo ci dóor yi nag Arona Mbacke ah, ngay nuyu bu Kayar. Ah, Mansour Lo waa Ruqu Montre. Uh-huh. Ruqu Montre nag. Uh-huh. dama bëgg nga dugal leen sa njaboot. Ruqu Montre waaw waaw waaw Mansour. ñooñ li ñu gën a bëgg la. li ñu gën a bëgg la jaay muy montre dama bëgg nga dugal leen sa njaboot. jeex na ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. <laughs> jeex na ayca borom mi di keng Antoine Diouf mooy ñëw moom moo ni Modou Lo eh, la fi mu yem